ñu ñëw tey fii nii dañoo euh, jot information que côté bi ñuy dagg garab yi bari nañ fi lool si lañ déplacé wu ñëw fekk nañ fi garab yi ngay gis nii suñu ginnaaw garab yi bari na lool lool lool moo tax ñu woo gendarmerie ñu def enquête bu ñu jot jàpp ñaar. donc ñu ne bii duñ ko bàyyi ni foog ñu woon ko autorité yi parce que depuis quelques années at yu bëri ñu ngi ñu ngi def euh, tournée gis nañ garab yi fu ñu fu ñu dagg garab yi bëri bëri bëri bëri bëri nee nañ donc foog ñu alerter population bi alerter euh, l' opinion nationale et internationale pour ñu jot lu xam lu xew si biir commune Dialakoto lu ñu bëgg mooy ñu arrêter Euh, euh, dagg garab bi exploitation forestier dans la commune de Dialokoto voir même dans la région de Tambacounda ci Tambacounda yëpp parce que dañoo ne euh, dañoo am autorisation circulaire mini arrêté ministériel bu bu bu jógee si kaw di dañuy nettoyer àll bi ñun dañoo jàpp ne garab bu wow jeex na moo tax ñuy ñuy def exploitation bi commencé nañ dagg yu tooy tamit.